الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu santaate yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu boole ñu jégal di ñaan borom subhaanahu wa taala mu dolli jàmm ci réew mi am na jàmm waaye mu gën ko dolli jaami li ñuy coow na te yàlla nee na maay jamono te ko xas jamono man nga xas mu mel ni kon dafay jaar bu ñu tawee ba ci yaakaar ñu xalaataat yàlla delluwaat ci yàlla mu mel ni loolu lañu yàlla woon comme ñoo ngi doo boobu ba jàpp ni ñun nga te fekk na dañu yàlla dugal benn savant bu ndaw jox ñu ko ñuy tëbaka dal di yóowu muy natt bi nga xam ne moom la fi teg muy mbas mi moom lu fi indi a jëlee keneen ko fay jëlee lii rek dafay woon jaame kenn mënul kenn amul kenn attunul kenn rek mën kenn rek am kenn rek attan muy jële jële waa Zakamalou ndax mbir yëpp ci moom lay dem mbir yëpp moo koy dogal pour wane ne moom kay mbiri keroog mu keroog mu lay wax yontu yàlla Ibrahima yontu yàlla Ismaila paaka bi wala ren Ismaila ren wuru dégg nga li paaka bi wax yontu yàlla sama nopp bi wax ak muy ndigalu Xalil ak ndigalu Jibril te du ma bàyyi njëgëru jëleen di def njëgëru xarit kon liñ ci dégg mooy baaxul sax li xam ne baax bi ni ko ndigalu yàlla moo gën a force sa xam mbas mi dañuy ñaan nag mooy gàllaayu jullit nañu doon di ñaani te moytu di ko jiiñante kenn ku ne jàppal ni yow kenn ku ne ne jàpp maa def li tax yàlla wàccee mbas mi suñu kaw waaye bu ko bëggee jéeñeent yaakaar naa fii mbas mi dafa jógee kenn ku ne na dugg ci biir néeru dugg ci biir xol laaj moom la kan kenn ku ne na nga posé sa question sa bopp ni kii je suis man la soo doonee wóolu xam nga boo doonee wóolu xam nga nit ku ne yaa gën a xam sa bopp doomu aadama kon fa tabaarakallaahu nañu ñaan yàlla rek yàlla jëlee ko fi coono yi bari nag te loolu fu duggee ba léegi ku war a lekk yaa ngi lekk ku war a naan yaa ngi naan dee gi bari na waaye ngi naan dee ngi naan li xëy dee mais li xëy nag ba tey li xëy dee rek lañuy wax. mais waxuñu luy xëy na dund hôpital yi bari na ñaata jigéen ñoo ñuy wasin waaw yàlla moo programme noonu àddinam ñii ngi dee ñii ñoo leen di pax ñii ñoo leen di wàññi suul ñii na leen pare ñii ñoo leen di sàng ñoo leen di sàng ñoo ngay ñeent ñii ñoo ngay ceeb kee ma matu kee ma jooy biir buy mett kee ma jooy bopp buy mett ñëpp ñëpp te benn taxaw ci nga xam ne képp jëlee jëlee waaw sa waaw waaw bu ku ne moo fi mbir yëpp day daw loolu nga xam ne moom rek mooy yàlla xoolal amul benn bu ci yokk wala nga ci wàññi te ñoo ngi demee ci kàttu borom subhanahu wa taala bu ku ne moo nga demee ci kàttu yàlla nga xam ni kon jaar yi dañu war a delloo war suñu xel ci yàlla kenn ku ne yaa fi tey ni dee gi bari na yéen ci wàllu jëli force boobu xam ni ki dem gënu ko yàlla may na tuuti chance pour nga delluwaat fekk yaa ngi def lu yaa ngi def lu baax ñu gën koo yokk waaye yaa ngi toog naan léegi bari na léegi kay léegi te xarnaas na nii nii nii te taxul nga arrière taxul nga dellu ginnaaw taxul nga bàyyi waxal yàlla boo ci waxee cinq minutes pare nga ci moom la sama sëriñ moo taxoon moo tax moo waroon kulli min baax na maati na si gis nañ ne yaa ngi fàttu fàttalu dee te yéen ñëpp kenn ku ne am nga war la ci kër dee kenn ku ne am nga nekk ci kër dee kon ñu bàyyi ci xel xam ne yàlla mu ngi fi teg yàlla rek moo ko fi mu ne jëlee yàlla fi yàlla jëlee bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fajaru nag moo gën faju comme ni rek jël mesure barrière yi takk masque yore gel yàlla wax ne tey ngay yem fii ci suuf rek tey ngay yokk waaw du ci yokk du ci wàññi laaj sa saa wala du ma du ma ci yokk du ma ci wàññi bu jotee rek dama koy daal def kon bu tabaarakallaahu yàlla yàlla ci réew mi jàmm yàlla yàlla def ñu dégg dégg jullit yàlla sàmmal ñu boppam gën a dëggal seen fan du nuyu Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fan Serigne Mountakha Mbacké yal na yàlla guddal fan Serigne Baye Bécaye Bécaye Kounta xalifa général de Xaadir yàlla nekk ba Njaasaan ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla gën guddal fan yal na yàlla sàmm ak yal na yàlla war ko bàyyi ba ngay gudd ñu ngi lay ziyaare di la jéego bu baax a baax waxoon nañu daan fi ñëw boobu ba léegi toolam ñu defandoo jot defandoo jotaay nga ñaanal ñu fi nga xam ne mooy suñu chef bi directeur bi di sëñ Samb Taalibe sëñ Cheikh Mbacke di ko ñaanal moom it yal na yàlla gën a guddal fan yal na yàlla gën a sàmm ko yal na yàlla gën a wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen bunteel yi ci bi nga xam ne moom la Seydina Muhammad jàngale waaw mu ni jigéen soxna dañ koy tànn waaw nee na soxna si ñeent lañ koy jëlee boo dee ba may la nga majeur wala mën a jël ku lu wéttali yokk sa jaam yàlla soxla dafay yóbbu jaamu yàlla góor soxla dafay tax ñu ñaaw la soxla dafay tax nga ñaw kon nit ki bu ne maa bindu góor ak jigéen ñu booloo dañuy wax tous les grands hommes y a ne ci ginnaawam la waaye ku fi taw ak ku fi doyoo rek jigéen tax ñu doyoo kon soxna dafa baax ci góor moo tax boo ci rek def ko. waaye dafa bëggee naan damay xaar maa ngi xaar maa ngi xaar fa tabarakallahu ba dugg ci yénaat yi fa tabarakallahu li la yàlla sant yow pour nga jëli ko ndax nee na jëli leen soxna yi bu ngeen jëlee soxna yi yaa ayyuha nnaas ittaqu rabbakum allazii xalaqakum min nafsin waahida wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa yow sama jaamu góor bi sama jaamu jigéen bi jëlal can can nag du xaalis rek can mën na nekk ceeb mën na nekk dugub mën na nekk oto mën na nekk fas mën a nekk avion waaye ñun léegi Sénégal dañ ko aaree xaalis waaye cat mën na nekk lu ne rek lu xaraam rek rek kenn si joxe cat na nekk mën nañ ci génnee li nga xam ne moom mooy cat boo ko joxee nag mu doog a laaj wala am na benn sëriñ fi génnoon temps yii passé ci koor bi muy boo waxee wax wala waaw rek su leen neexee mën ngeen commencé see nga xam ne ko la bëtt ñu ne suñuy bët àgg ko ci ñun. su su suñu bët àggee nag du ñu wet na li Sëriñ Maam waxoon du nit du weddi lu ma xamul du demee ci waa xii lu ma xaal waaye nag ci li jot a jàng ñu xam ko mooy da ngay joxe asadaxatun mooy can can googu la ngay joxe keroog bi yëpp ci yàlla aadama doon nelaw yàlla rocc ci faaru càmmoñam génne ci nga xam mooy a bi mu ko defaree ba xawaa rafet a fëgg aadama aadama yow bi aadama yow rek dafa xool xawaa xawaa rafet lool ndax alalu góor la maanaam fu ko góor bëgg fu ko góor gis rek da koy bëgg maanaam boo déggee dañu naan kii daa bëgg jigéen loolu wax ju yàqu la rek góor day bëgg jigéen maanaam kon su bëggul jigéen kën lay bëgg moroomu góoram kon yooyu wax ju yàqu la ay kii daa bëgg jigéen kooku wax ju yàqu la góor day bëgg jigéen bëgg gi nag ñooy am ñoo xam ne nag amuñu ci ngor waaye ba léegi ñu naan diw daa bëgg jigéen amul ku mën jigéen mënul nekk ala kulli xaalis loolu mënul nekk moo tax keroog bi ci yàlla aadama yeewoo bëgg jël ko ci suñu ma xawaa yàlla ma tegg sa loxo muy ko dox mu ko dagal bu la mais que lan moo tax mu dagal ma lu ko julli ci Seydina Muhammad xam muy allahuma salli ala Seydina Muhammad wa sallim mu doon koo dagal kon nit tamit mu dagal la xale jigéen bi faaw nga jël cat jox ko ko te ca loolu nag mën na nekk li nga xam ne moom moo dagat waaye léegi bala mel ne la jàkk ji mille quatre cent jàkk ji deux mille rafet na ndax organisation la ndax nit ki Serigne Cheikh naan wax naan bu ñu organiser moo gën dëgg bu ñu organiser wu. wala seen naa ko xamee wax ne bi yàlla tamit jël leen soxna yi ngeen am ci ay doom yu góor bare am ci ay doom yu jigéen yu bare kenn ku ne li nga war a dundee maa la koy jox xoolal yàlla mu wa anzalna mina al-muhsinati maa sajaaja li ndoxoy wii xabba wa nabaatan wa janaatin alfaafan xoolal DG bu lan wax mi ne moom sax maa sajaaja maa ngi wàccee ndox mu génne la ci biir pepp boobu moo xam dugub la moo xam gerte la bi gerte gi génnee yow nit nga jël gerte gi yow nit nga jël dugub mu jël ngooñ gi ne dana nga jox ki nga ni mooy xar bi xar bi lekk bëy bi lekk xoolal lii lii moo la dundal lii mooy dundal kii xeet gerte googu nga jël bi si dund di laaj ñax yi jox ki nga xam ne moom mooy xar bi xar bi lekk ba pare la lay mu génnoon ay ay nag ay pomme bu loolu noppee mun na la loolu désert la li ci kii rek kii lekk kële lekk kii di utiliser kii kii di utiliser kii nga wa azza kamaa loolu yàlla yàlla xëy a Seydina Muhammad wax ni soxna nag buñ koy jël dañ koy jël ci ñeent bi ci jiitu borom tubaab bi sax wax na ko bind a ko en français o ne on épouse une femme pour quatre raisons waaw booy jël soxna da nga koy jël quatre raisons moom la Seydina Mouhamed ni booy jël soxna jël ko ci ñeenti jikkoom yi waaw ndax jikko ci la ñuy nawe doomu aadama mu ne nag boo koy jël jël ko ci ñeenti yi ñu ne bi ci jiitu mu ne na am alal na nekk borom xaalis sa richesse waaw jigéen boo koy takk na fekk jigéen bi am xaalis waaw na am xaalis waaye nag lu mu bëri bëri bëri bëri bëri xaalis lu tax nag tamit lépp lu war si diggante moom nga def ko waaw lu mu bëri bëri xaalis lu tax nag waaye lu mel ne ni Xadija day gën a neex ndax dafa nekk milliardaire jël Seydina Mohamed amul dara ci ci wax yi keroog mu duggee mu jël kër yi oto yi euh, oto yi kër yi kër yi kër jël jox Seydina Muhammad ni ko tey huit heures milliardaire laa woon mu ni faqiir laa lépp la paak sa ginnaaw waaw ndax jigéen ñu bëri ragal <laughs> tabaarakallah wala ñu bëri bëri bëri bëri daal di ragal ndax góor li def ñu jikkoy Seydina Muhammad boobu tamit waaw am nañu am nañu tey ji am nañu dal yi du ñu wóor du waaye léegi sax jigéen day topp góor bëgg ko sax léegi góor bi da kay namoo léegi kii may bàyyam kii nii kii naa kii du dara affaire yi fekk na mbëggeel na doomu aadama mënul contrôler maanaam ku mu dalul rek da nga kaa xamul maanaam sëy naa xamee ni sa richesse jigéen bu ñu koy tàkk nañ ko tàkk ci mu am alal mu am xaalis waaw mu am alal na alal boo xam ne du la sonal waaye nag lu mu mën a mën a yor ci alal tamit fa sa alal moo ko war a dañuy wax ne lu moom sax kër gi mu dëkk sax su ko moomee Sénégal nee na yow nga nga luyee bi di ko fay looy wutee nga xam ne Sénégal teral na jigéen Sénégal màggal na jigéen wala bu leen tubaab yi bëgg di ndax fi naa ne ay parité dañuy dañ leen ndax seen bopp rek dañoo nangu seen àll jox leen li ngeen moom waaye diine moo leen jëkk a teg sa kaw diine moo leen tege tege tege tege tege tege sa kaw waaye nag aar moo ñu solo mu ne bi ci ñaareelu soxlaa soxlaa nag boo ko déggee mooy mu am askan bu normal mooy askan fa am doole askan dafa am doole askan dafa am doole da nekk borom askan bu riche fa tabarakallahu waaye moo tax jigéen bu nekkee si koñ war na xoolaat comportement war na xoolaat bu muy doxee na xoolaat bu muy waxee ndax lii génn ci moom ndax askan dafa am doole moo tax mooy yëpp ñaareel ak askanam bi si ñetteelu mooy sa voté ñun ñëpp léegi loolu la ñuy xool waaye xool nañu jikko yi léegi xale bi rafet na rek wala kanam bi xoola bakkan bi xoolal ni rek xool mais léegi dootoo xool leen jikko ji doonte Seydina Muhammad nee la booy xool jigéen nag takk ko nag mu rafet waaye nag takk jigéen ñoo xam tamit DG xëy mënoo koo xool loolu moom yéen ci am musal waaw tabarakallahu taala di see bax kon yaakaar naa loolu indi ko am waaw waaw ñoo xam ne bu loo xool boo génnee doo am dara wala nga ñëw fekk ñu ñaari seen xelal bi xam nga boo ñaaree boole ko ñàngal kooku moom yaa ngi xal ci jëkkër moom waaw da nga war a même bala ñaaw ñaaw da nga wax dina dal waaye en général rek ñi ñaaw ñi ak ñoo am ful ñoo gën a am ful la fuuf ñi nga xam ne daal dañoo rafet donte kenn ñaawoon na kenn ku nekk kenn ko ci yow kenn ñaawoon na ndax kenn ku nekk visibilité bi yàlla na ngay xool li li ngay gis si moom noonu ak li kenn di gis du benn waaw kenn ñaawoon na su rawatina nag jamono yi nga xam ne jamono yi sama sigi la lépp léegi lañ ko dolli posé xel posé wéer ah ah dafa amoon posé as ah posé wér defaru sol sa tubéy génn mooy cakar cakar yi ñu yow wala damay wax man damay faral di wax ma waaye jekk na am na ko dindee boo ko waaye bu ko solee bu la rombee nga kay macha allah xanaa ci waa àjjana la génnee kon ma ko wax ak yal na yàlla doon jot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mu sa beauté ko jëkk ci taaram waaw jigéen bëgg nañ ci rafet ba waaw bu la xoolee na bëgg rëy la ca war a ni tànn tàllaara la ca war a ñëw ni këdd ku laara nan la ma bàyyi waaye na nga takk sa seytaane waaye takk bi bàyyi ci biir kër yi di gëré di ransatu yi yàlla ci ci ñetteelu mu ne sa religion na am jikko na am diine te loolu moo am solo ndax say doom moo leen ci yoonu siraatal mustaqim waaye boobal boo doonoon imam wala wala oustaz wala wala muqaddam wala waliyu wala xalifa dem takk jigéen joo xam ne waroo koo takk say doom ni nga bëgg ñu mel ko duñ ko mel say doom ni nga bëgg ñu mel ko duñ ko mel ba waa ji ni ko yarama sama doom yi dana ko yéex na mu ñëwaat mu nga yéex na ñu ko ndax na nga yéex na ko sax ngay yéex nga di ko doo ko kon yal na yàlla bañ a dajeg ñoo xam ne seen jikko yi normal na tegu nañ ci yoonu salaatal mustaqiim bëgg nañ yàlla ba ba la indilee seen njaboot ba ba la indilee seen njaboot ñu mën koo teg ci yoonu salaatal mustaqiim mën ko jàngal seen diine mën ko jàngal seen aar tamit waaye mën ko yar boo seen loo xam ne choisir celle qui à la boo jëlee ki xam ne moom moo am jikko diine moom la yàlla dimbale ba mu jàng alquran mën a julli xam woor xam nañ génn asaka maandu te gémminam te tànkam te loxom yàlla dina la dimbale di nga réussir sa àdduna réussir sa àllaaxira yàlla ci yàlla defal di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggi waa ñëpp nag di baal wax ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ñoo ñu fa nii rek tabarakallahu yeneen ñoo xaw a sutante nag moo tax si dañu ci chaîne YouTube bi di leen baal wax ci task bi ñu di leen baal di ñaan yàlla yal na yàlla taxawu site bi yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla wattu leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ñu daaneel mu te du suñu yaay yooyu nekk ba naka ziyaara ko suñu sëriñ boobu sëriñ Babacar Diarra nekk ba Zag Mbao di ko ñaan yàlla yàlla doon taxaw ko di mag si ñun waaye kii dafa si ñun fa tabaarakallahu du ñuy bàyyi kay kuddu di ma bàyyi mukk tabaarakallaahu Serigne Babacar Sall di sër si Serigne Babacar Sy di nuyu ma Ousmane Sy Dabakh Serigne Moustapha Sy responsable moo tax fii nag fii wa ayyidahu nasara di leen ñaanal yenn yàlla taxawu na day duyi waa daayira moo tax fii ma fàtte ki nga xam ne ñooy daayira mujahidina fi di ñaanal Baye Adama leen yàlla gën a guddal fanam ma fàtte ma fàtte mooy waa Xidmatul Xaadim nekk Pàcc Laabe dama fàtte ki nga lu ne mooy lay konul di nuyu ñi di ziyaare ñëpp di baalaat ñëpp di nuyuwaat DG baax a baax ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci sëñ bi ñoo ngi lay ñaanal yéen yàlla doon taxawu la yéen yàlla doon dëgëral la yéen yàlla doon jàmmal la bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag kër Moussa Diarra yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn nuyu naa kër Moussa Diarra di nga demee ci loxo Thierno Diarra Assane Diarra Amadou Diarra yéen ñëpp nuyu naa leen ziar naa leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh